bataille rangée ci politique lañ ko fekk militant boo gis am na ku mu àndal mais li président wax moom la ñuy xaar ku mu teg ñu ànd ak moom jàppale ko coow moom ci politique mun fi jeex politique ak xeex ñoo ànd mais ñoom ñaar ñoo ànd génn dem ñoo taxaw waxtaan kon fii coow amu fi. président li mu wax bu joxee ndigal rek ñu jàppale ko ba mu neex APR noon la parti boo gis am na xeex. parti boo dem ay tojante xe bopp fa ak ay xeeru ñuy sànnante fii nag jàmm xeex xeex moom du fi am moom nañ mer nag xeexante mais jàmm rek moo fi am président ku mu teg ñu ànd ak moom gunge ko. li sabab coow li mooy tey dañoo woote woon pour waxtaan te jàpp naa ne bu ñu wootee pour waxtaan am na ci loo xamante ne mënee su ko def wala du ko indi ci biir parti bi tey li nga fi gis ñëpp di gis ko teg ci bët. mooy ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Diouf Sarr ànd ceeg ay nitam tey ñëw fi indi fi ay rëq-rëq mobiliser ay booy pour saboter te jàpp nañ ne contexte bi ñu toll loolu warul du suñu wareef loolu du suñu cër tey ñëpp gis nañ le premier ministre Amadou Ba maa koy saluer ci pertinence am ci dëw ci ci taxawaayam ci posture ci engagement ci constance am ak ci unité bi ndax ñi gis nañ ne tey comportement bi mu wane mooy wane na ne un comportement homme d'État un comportement de responsable parce que li tool yi di bari bari bari mi ngi taxaw pour waxtaan ak nit ñi saafonte ak nit ñi bëgg nit ñi ñoo ñëpp ñu toog àndandoo ko ndey ko baay pour le devenir de notre parti pour préparer également les séances prochaines donc kon nag ñun li ñuy interpeller le président de la république en tant que jeune du département de Dakar di ko wax ne ñun ci discipline du parti la ñu ci parti politique la ñu nekk ñun nous respectons nous respectons les disciplines du parti politique Nous respectons également le statut du parti politique. Nous respectons également la ligne de conduite du parti politique. Donc, si nous, si nous soit, le du président, mooy notre choix. mais aussi de préférence kenn ku ci ne am nga sañ-sañu ne man na diw moom moo sañoon président diw lay tànd parce que vu le contexte ak ak ak ak situation fi mu toll ñun dañ koy proposer mooy mu choisir Amadou Ba parce que jàpp nañ ne c'est la personne boo xam ne même en dehors de ñi nekk ci parti wala ci coalition bi jox nañ ko bopp sénégalais yi bëgg nañ ko du wax lu ñaaw du def lu ñaaw te chaque fois unité lay woote te dynamique unitaire lay woote te ànd lay woote te jàpp nañ ne te taxawaay bi mu am nii bu ko àggalee li ñu bëgg incha allah en deux vingt quatre dinañ ko am.